aussi jeune nga da ngay suivre sociaux yi ñu gis ni li nga xam ne ne moom mooy bi màggal gi passé ñuy waaj a préparer li nga xam ne ne moom mooy gàmmu jeunes yi bëri dañ nekkoon ci réseaux sociaux yi di xëccante li nga xam ne diine bi ñi naan coupe d' afrique bi passé na coupe du monde lañ jëm jàppee li nga xam ne ne moom mooy Touba coupe d' afrique gi moom mooy coupe du monde ba sax day am ñoo xam ne dañuy saagante xeet ci affaire li nga xam ne moom bi ak taarixa xam nga gàtt xam ak euh, ñu baal ma ci terme bi yabaate dafa dafa dafa ñëw ba Sénégal rek mu toog fi ndax euh, gàtt xam-xam bi ma koy waxee d'abord gàmm moo gën bis yëpp te gàmm du gàmmuk alaaji Malick du gàmmuk maam xalifa du gàmmuk Baye Niass du gàmmuk Serigne Touba gàmmuk rasulillahi la rasulillahi moom ñuy gàmmal kan moo ne la boo demee Touba doo leen fekk ñuy gàmm kan moo ne la boo ñëwee Niassène doo leen fekk ñuy gàmm kan moo ne la boo demee Touba doo leen fekk ñuy gàmm kon foofu amul amul amul coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ndax rasulillahi bisam moo gën lépp waaye nag mu des terme na nga koy waxee ak na nga koy defee ak defante ba ak fa nga bëgg a jël maanaam yoolu gàmm dugal ko ci génn kër toog ci na yow yaa ko moom wala nangam kon nañ arrêté yooyu dafay indi ay yabante te képp ku bañ ñu saaga sa sëriñ bul wax ci sëriñu jàmbur lu ñaaw képp ñu bañ ñu saaga sa yaay bul wax ci yaay képp ku taxaw saaga sa yaay saaga yaay jàmbur xaaral xaaral réponse bi mooy sa yaay la si te heure bu heure heure boo bañee ko wax ci sa yaay rek bul ci yaay jàmbur heure boo bañee ko wax ci sëriñ it bu wax ci sëriñu jàmbur màggal génn ko ci gàmm màggal génne ko ci gàmm baatu gàmm mooy lan mooy màggal rasulillahi màggal mooy lan koo xam ne soppeeb rasulillahi la woon dem ci géej ñu jël ko yóbbu ko bañ ko yóbboo mu tawasul ci suñ borom suñu borom dellusi waat ko dellusi googu suñu borom dellusi ko waxut ne kaay leen ngeen sant ma kaay leen ngeen sant li ma yàlla la wax te yàlla moo gën a for rasulillahi waa leen kaay leen ngeen sant li ma yàlla te yàlla moo ne bu ma leen defalee sant leen ma teraanga yi dee leen ko sant la in zakatum la azidannakum ba pare nag ñu ñëw di ko santale sant sant googa ba pare nga bëgg a jël nga bëgg a jël ay bis par bis bëgga jël def lii coupe d'Afrique lii coupe d'Afrique ak coupe du li ci am mooy lépp ca yàlla la jëm yàlla moo xam lam cay nangu ak lam ci du nangu kon ndaw ñi nañ defaraat seen toogin ndaw ñi nañ ànd ak discipline ndaw ñi nañ ànd ak yar ndaw ñi nañ ànd ak teggin nañ bàyyi ngawti ngawte gi ñu ngawti ngawte kilifa yi gis nga xalifa généraux yi réeroowun ñoom seeni maam réeroowuñu woon ñi ngi doon ànd benn tool lañ amoon muy toolu rasulillahi benn sëriñ moo amoon benn patron muy rasulillahi benn dirigeant moo amoon di diriger ci mboolem koo li mu daan def mi mi ngi ciy nangu mooy subhanahu wa taala yàlla bu yàlla dogalee ndogalam nga nag nañ jël mag ñëpp boole leen te mag ñii ñuy bëgg a tàqale yàlla tàqalewul leen ndax sëriñ Tuubaa mënoo musa ko waane bu bokkut ak alaaji Malick foo leen dàqee ci càllale la ñoo bokk Cheikh Ibrahima Fall mënoo musa ko waane bu bokkut ak parce que boo ne Samba Coro Fall teg Samba Jeey la ñes mënoo musa ko waane ba ñoomi neen bokkuñ kunta kunta yi mënoo mësa ko wax ne bu bokku nag laayeen laayeen kon ñooñu seen maam yi jaxasoo woon bokkee bu kii jëlee fi soxna kii dem jël fi soxna bu jëlee fi soxna kii dem jël fi soxna seeni deret yi jaxasoo liñ ci liñ ci doon bañ mooy lii ñu bëgg a suuxat tey Sénégal mooy bu bu màggal passé nga jug wax ca màggal lu ñaaw ñooña it ñenn ca ñoom jug tontu la parce que yaa wax ci seen sëriñ mu indi guerre boo xam ne guerre de réseaux sociaux la nañ ko arrêté ñi nga xam ne ñooy xaw ma waa Sénat xaw ma waa nanga ñuy ñu ah waaw xaw ma ñooy xaw ma waa Sénégal la xaw ma. Sénégal ah, Sénégal ñiy affaire de internet affaire de nangam yii nii nañ teel a jël seen seen seen matukaay ci yu mel nii. parce que li tax ñu war a jël seen matukaay ci yu mel nii parce que lii ñu ngi koy xeeb mais dafa mën a taal fitna ci réew mi. man Cheikh Niass digaluma kenn benn sama benn taalibe ak benn taalibe xalifatul xaaj Mouhamad Niass ñuy wax ci xalifa Niass lu ñaaw ngay tontu kooku di ko tontu ci sëriñam ndax nekkul sëriñam moo wax ci yow moo wax ci xalifa Niass lu ñaaw. moom ma moom ma nga xam ne matul taalibe mooy taxaw di wax ci Khalifa Niass lu ñaaw que ku ma taalibe dëgg doo wax ci sëriñu jàmbur lu ñaaw boo waxee sëriñu jàmbur lu ñaaw rek ñu delloo ko si sëriñ kon boo xalaatee loolu doo wax ci sëriñu jàmbur lu ñaaw déglu lu ma it benn taalibe sëriñ Touba Cheikh waxee taalibe Tidiane lu ñaaw rek jàpp na da koy ma it benn taalibe Alaaji muy wax ci taalibe sëriñ lu ñaaw parce que heure boo ko defee ñu delloo ko sëriñ kon yow mi nga xam ne yaa ngi jël sa connexion bu doy amul lañ la ci def lu dul xas mag ñu baax ñi yow ma nga xam ne war nga koo tontu maa ngi lay ñaan jëlal wax ji boo bëggee mu oyof ne ko yàlla na la bu fekkee alaaji Malick ca la wax lu ñaaw ne ko yàlla na alaaji Malick fayul boppam pare ci wala yàlla nañu yàlla atte pare ci balaa ren déwén bu leen yàlla attewul ma génn ci li ma doon bu dee la wax lu ñaaw yow murid mi a tontu taxawal na ko yàlla nañu yàlla nañu yàlla atte ci dara ji Cheikh Amadou Bamba nga xool ba xam yàlla dana atte balaa ren di déwén yàlla atte moom moom ma defoon loola da ko dégg ci leen lu bokkul ak loola kon nañ bàyyi di saagawante ci sëriñ si bu sëriñ bi waxee li aussi tamit ngeen déformé wax ji jël ko waaw kii day gaaral day nangam ak fii la waxee nangam nangam nañuy moytu yooyu nañuy moytu yooyu ba muy téeméer yoon parce que dafay indi fitna ci réew te fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko yee nañ moytu détails yu sew yi nii ñi ngi ñaan ministre de l'intérieur ñi ngi ñi ngi ñaan ministre bi nga xam ne moo yor wàllu éducation bi kooku moom mu ëpp liggéey ci réew mi léegi xaw ma ministre de l'éducation xaw ma kooku ñi ngi jàpp ay l'intérieur yi di wax kooku moo ëpp moo ëpp parce que bu fekkee ne nga xale yi taxaw di saaga wan ñoom ñëpp génne nañ ci école yi jàngee ci daara jàngee ci nangam mënuñoo baax nañ ubbi ay daara internat yoobu leen fa ba xam danañ baaxeem déet mais bëgg a jël yëpp teg ko ci français bi bëgg a jël yëpp teg ko te ñuy jàngale ci école français yi ñoo ñi ci ëpp ñoo maam tey pour ñu pour pour ñu indil la moo yi nga xam ne ni mooyu naan il faut ñu tontee la ko ci tontine bu vulgaire boo xam ne ni yow xale bi da ngay jàppale tontine boobu rek mooy dem kon kooku na defar ministre de kii nu mu ci éducation moom am na liggéey bu rëy mooy wàllam yar ak teggin amatul ci réew mi foofu moom bu ma saan Macky Sall juróomi nit yu bokkul la koy jox ñiy wër réseaux sociaux yi di wër internet yi ut localisation yi kenn ku ci nekk taxaw bëgg a saaga mag ñu baax ñi bëgg yàq liggéey yi mag ñu baax ñu jël la yar la li laa amoon ci li may wax ci loolu mais instant bi nag boo xoolee ñi ci gouvernement bi de temps en temps ñu ngi gën dëggal seen tànk di wax ni Macky Sall dina def li nga xam ne moom mooy man daal li ma ëppal importance mooy Ousmane Sonko laa pare pour campagnal ñun jeunesse de lew nañu seen bi yëpp ñi nga xam ne ñi ngi bokk ci mouvement Sen Marabout bi ma jiite li ëpp pile de cent personnes Ousmane Sonko la ñuy campagnal troisième man na dana ko laalam du ko laal nag xal bu tàng la bu xonq cor ñu teg ko ci kuddu talal ko ko moom mooy xool mu bàyyi xal bi bañ koo lakk wala mu teg ci loxoom xal bi lakk ko moom mooy xool bu ko ci arrangé rek lañ lañ bañal Wade démb nag tey lañ ko gën a bañ lew nañu seen ba woon démb tey la gën a suudewu bul fàtte ne foofu laay tëjee lew nañu seen ba Abdoulaye Wade taxawee nekk ci digg ndëndëm di laaj troisième mandat Mohamed Ibrahim mii mooy imaam imaam bi nga xam ne moom jamonoy corona ba moo taxawoon ne day tijji jumaa ji julli ji bañ convoqué ko police imaam booba bu leen fàtte ne moo taxawoon fii ne Abdoulaye Wade bu fekkee wàcc réew mi mooy jàmmam ci mooy jàmm ci réew mi na wàcc réew mi troisième mandat dañ koy bañ ci réew mi comme na Sénégalais yi ñoo koy bañ comme na wàcc réew mi ñëpp di ngawti ngawti di tiitiraas lew nañu seen lew ne boobu nag tey la gën a taxawaat tey la gën a bañ ne troisième mandat àndu ci tey àndu ci ëllëg amul benn jeune ak benn mag ak kenn koo xam ne kilifa nga fii ci lew nañu seen di fi yeewoo nangu troisième mandat tey lañ ko gën a bañ tey lañ ko gën a bañ tey lañ ko gën a bañ te ñi ngi xaar ñi pare pour poser troisième mandat ba xam pare nañ pour ñëw wala pare wuñ pour ñëw li ñuy wax nag dund tey ak dee suba la ñuy xamale képp ñun li ñuy jaamu rek mooy yàlla liñ bëggal suñu réew it mooy mu bañ a am fitna yoo xam ne ni kenn xamul fa muy teeree ci fitna jooj nag kenn mënu koo taal ci réew mi ku dul koo xam ne da taxaw peuple bi ne bëgguñ li nga ne koy def kenn mën kenn mënu indi jàmm ci réew mi lu dul peuple bi taxaw ne bëgguñ li nga taxaw ne peuple bi bravo ci seen seen bëgg-bëgg ci laa ànd kon defatuma ko lii la ñuy xaar ci président mooy troisième mandat bëgguñ ko bëgguñ ko te ñun lew nañu seen tey lañ gën a taxaw ne bëgguñ ko mm, ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal yéen waa chit yi fi ñëw yëpp ci gàmm gi ñu nekk yàlla yàlla na def bu mu nekk suñ mujjanteelu gàmm te bu mu ñuy bu ñuy fekkaat ëllëg yàlla na yàlla def suñu yokkute jaahir ak ci baatin képp koo xam ne ñëw nga ci gàmm gi indi fi jàngoro ak bu mu mënti doon nga koy nëbb nga feeñal ko yàlla na ko yàlla saafara jaahir wa baatinan képp koo xam ne indi nga fi soxla soxla bu mënti doon bu dul mooy yàlla tas mbokk du tas lislaam yàlla na yàlla saafara jaahir wa baatinan na yàlla suudewaat mbokk yi yàlla na yàlla dëgëraat këru diine yi yàlla na yàlla def këru diine bu nekk benn yàlla na yàlla def këru diine bi nekk benn yal na yàlla génn saytaane ci xoli nit ñi génn ko ci réew mi képp koo xam ne yaa ngi ci réer ci ci ci kufru ak ci mbooleem lu mu mënti doon yal la yàlla génn ci réer googu nga nekk réew mi yal sotti jàmm yal na fi yàlla sotti ñi nga xam ne ñi ngi jiite réew mi ah yal na leen yàlla kartanal comme niñ ko bëggee ci jiite réew mi ci li gën ci Sénégal na leen ci yàlla génn ci seen xel ba muñ ko def yaa bi ñii laaj réew mi ku gën ci senegal yal na ko ko yàlla jox duma ne Ousmane Sonko yàlla na ko ko yàlla jox wala yàlla na ko yàlla ki gën ci Sénégal yàlla na ko ko yàlla jox te ñun xisaab nañu xadaat ba gis ne Ousmane Sonko mu gën ci Sénégal comme neex nag na nga yóbbu wax ji fa la neex waaye ñun moom lañu ànd ak jërë ngeen jëf